auzu billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim la xawla wala quwata illa billah azim mbokki julli di mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sant yàlla ñu ngi julli ci bu sell bi sallallahu wa sallam di sant suñu ñaari waajur di sant si Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul di ziyaare sëriñ Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi lool di ziyaare suñu sëriñ sëriñ Mamoon Masamba xalifa Cheikh Masamba yàlla yàggal ko fi di santaat yàlla bu ñu yàlla defee ñi fi ñëw yal na leen yàlla defal tawfeex yal na yàlla nangu suñu màggal am benn point bu ma bëgg a ñëw rek wax ci benn deux minutes wala trois minutes démb damaa seetaan cérémonie officielle bu màggal bi ma gis porte parole bi wax ci cérémonie bi ñu am fu ñu ko doon séentoo ci point yoo xam te ni man gisuma ne point yooyu ñëw na ci muy jafe-jafe màggal bi nga xam ne depuis cinq ans six ans waa Touba ñu ngi ñëpp xam nañ ne màggal jamono yi ci nawet lay nekk booy dugg si Touba di jóge Mbàkke Dakar di dugg Mbàkke wala nga jóge eh, Janatu di ñëw wala nga jóge Louga di dugg garage daal ñëpp xam nañ ne ci ndox ngay jaar boo yegsee ba sa kër ci ndox ngay jaar togg ci ndox ba pare génn di wuti ndox loo togg kon loolu jafe-jafe la benn ñaareel ba lan moo tax heure bu fi état ñëwee toog toog ci wetu sëñ Muntaxa ñu ne Touba def nañ fi 46 milliards ci assainissement mais dañuy laaj loolu fan na dugg ñu ne suñu assainissement ci Touba ndax Touba heure bu tawee jafe-jafe am na kon ñu ngi doon xaar porte parole wax foofu jafe-jafe dëkk bi ñàkkum ndox mi ci dëkk bi depuis 3 jours màggal avant trois jours et après ba fii may wax yow dëkk bi amagul ndox loolu jafe-jafe la te nit xam na ne bu manqué ndox du mën a togg du mën a naan am na ñoo xam ne dañoo génn seen kër yi. ndax ndox ñii ñàkkum ndox jafe-jafe jooyu war nañ cee mën a ñëw ba pare man it comité d'organisation màggal gi man damay gis chaque année ñu dem def seen CRD dem Diourbel def préparation màggal gi wax màggal gi ni mu war a doxe ak manquant yi am mais heure bu ñëwee ba ci màggal gi ay jafe-jafe rek la waa Touba di dund man damay laaj comité d'organisation li muy jariñ ci Touba jëriñu dara lu lekkub xaalis waxuma ne kër sëñ Touba gii doomu changé rido ay 10 million loolu fan la am ci àdduna bi ngay wax yow porte parole kiñ ko kiñ dénk comité rural bu Touba mi ngi sa ginnaaw mooy itam war nga kaa soññi liggéeyam ci Touba dafa des yow yëpp ni ngi leen fiy séentu naan état am na lu mu fi def waaye li mu fi deful moo gën a ëpp fuuf ci point yooyu lañu waroon na ñëw wax nit ñi dëgg di wax sëñ Mountakha di ko yëgal li xew waaye du ngeen ko wax état heure bu ñëwee bu ngeen toogee da ngeen di wax lu neex état ndax privilège yi ngeen di jox yi ngeen di jël. ñun ay taalibe lañ gëm sëñ Tuubaa bëgg dëkk bi dañoo bëgg bu ngeen toogatee di wax ngeen wax li dëkk bi di dund li wax di waa Touba di dund ak taalibe yi li ñuy dund li ñuy jànkonteel boo demee Samb kër sëñ Bara Fodé foofu gi amuñu courant courant bi da doon coupé tout le temps yàq seeni frigo yàq kër ñan gi kazaalika boo demee Ndamaat kenn mënu faa jaar boo demee kër ñang kenn mënu faa jaar yéen heure bu Macky Sall di ñëw tubaa bu amee ndox fi mu war a jaar ngeen man ko ba mu jeex. ngeen ñëw jaarale ko ci kër sëñ tubaab bi ne ko Touba jàng loolu amul yow itam mag Sall ñu ngi lay laaj nan nga mën a amee premier ministre am président président assemblée nationale. te yow heure boo yónni Antoine Diome ngay yónni muy dem heure bu toogee di wax lu ko neex di wax ay erreur communication zéro état lan la satisfaire ci màggal gi. màggalu Touba ci ay jafe-jafe rek la dund. billaahi wallaahi taalaahi képp ko waxal te yàlla tax te Serigne Touba tax rek ngay wax xam nga ne màggalu Touba gi des na. parce que ndox mi dafa ñàkk ñépp sonn Touba mooy fa heure booy màggas da ngay xuus ci ndox boo ñëwee sa kër mu am ndox nga génn dem di roote ji ndox moo togge loolu jafe-jafe la koo yooyu dañ cee war a ñëw li war jumaa ji yëpp day taa dañ leen waxante dëkk di wax li xew ci dëkk bi ñun ci dëkk bi lañ dëkk bu ngeen toogee foofu ci ginnaaw euh, ci cérémonie bi di wax li manquant yi nekk ci dëkk bi di wax lu leen neex bu ngeen génnee danañ ci mën a wax suñu xalaat ñi ngi ñaanal ñëpp di ñaan ñaanal mun Muntaxa yàlla yàggal ko bi di ñaan màggal gii di ñëwaat yàlla dàq bu réew wasalaamaaleykum wa rahmatullah